daa première dame kontaan nañu ndànk rek mbokk yi Marème Faye Sall ngi noonu ak docteur yi. waaw Mame Diarra Ndiaye waa quarante ma ngi fii Mame Diarra Ndiaye Mame Diarra Ndiaye quarante ma ngi fii na ñëw na ñëw bye bye maman. Thank you. boy arrière tuuti s'il vous plaît Rama Rama Rama. Cheikh kaa bi fi mu toll nii kaa bee critique ba nga xam ne nii. lii laa bëgg a jox foofu léegi. wala lii nii léegi dafa ko bon xaaral rek. fii kay moom Apa fi mu toll nii moom. daa critique. avance avance lii rek nga génn moo gën. 2024 troisième mandat seen loxo. grand grand dugal ma lii grand dugalal ma nii kurus kurus gi kurus gi fal fal fal demal demal demal demal jële jële loolu grand Baboy maa ngi lay maa ngi direct Sénégal 7 parce que dama jël ñu ngi lay ñu ngi lay ziar grand grand ban impression nga am tey fii ci ñëw première dame fii nii. doomu doomu baal yi mhm. première dame bu def mel ci dañuy am mbégte di mhm. ci taxawaay bu muy taxaw ci baal ma mhm. def fii lañ nekkoon di def ay lutte nekk champion ba bàyyi kon bu ñu organisé leen ñu invité ñu dem fii ñëw sargal ko remercier ko kon li muy defal ko population bi ñu kontaan parce que ñun ñoo ko war a def xëy na mooy ni tollu ñu ñu gis la ci suba ba léegi kan nga kan nga kan nga amal relation ba tax nga nekk tey suba ba léegi waaw kan amal relation libaas xam lay libaas sama xarit la organisé leen ñu invité ñu gën ci sawar ndax li muy jàppale Sénégal yëpp merci beaucoup grand voilà mu di eh, réaction kii di Baboy mu ñëwoon fii